bismillah ñaanal na leen jàmm yéen ñi ni topp ci xalam tey sunu leeral ñoo ngi ko bëggoon indi ci liis di wax mondialisation nun doon milim réew nag nu nar cee gën dee ndax bu mondialisation sottee lislaam moom dañu niy nettali naanu mos na fi am lii nag nu muy demee yoon waa ngi nii dana leer nañ ci sa bopp waaye nag képp ko bàyyi réew mi ak ñees ko xamee ni sama yónniku ci bis dana ñëw nga jooy bëccëgu ndara kàmm ngir li ngay gis bu dul diine sax sa xol da ko dul mën a déggu waaye yow mal di la xaar ndax doo fa yóbbaale diine am soxna mu am ñaari jëkkër ak ñett force doole mbaam doo sañ a bañ moo ngi ci sunu kanam yàggatul wala sax ma ne ñoo ngi ci biiram am doom mu mat a ñu ne la du sëy am sa doom ni da nga koy yar ñu ne la du fi amee am sa doom ni da nga bëgg mu jàngi alxuraan ca daara ja ñu ne la du fi amee lii lépp ma nga ñuy xaatime ci bitim réew dina ko jol fii ñu di ko jën ndax fa ñu koy dikkoo ñoo fa teewuli jullit ñoo fa teewul ñu ragal yàlla ñun ñoo ni képp ku baax liy tax nit ñi baax yoonu waru ca nekk moom daal kurusam la war a yor sol xaftaanam toog naa waaw xaala laahu xaala rasul te bu takk der ñëwee ba alkaati di ko jël du wax ba ñu bàyyi ko keneen du wax ba ñu bàyyi ko lu may ñamu jàpp ni ñoom ñooy saay-saay sa nga xam ni ñoo war a yorum réew mbokk yi nañu xellu bi may ñëw léegi nii am na benn rajo bu siiw bu may woo ndax dafa am lu Nations Unies wax presse bi yëpp yaakaar naa ni wax nañ ko démb di wax ni léegi am ñaari soxna moom dañ koy tere lu ko ëpp nag moom waxaale wu ma ñetti soxna ak ñeent maanaam li ñuy wax polygamie te na ngeen xam ni loolu pour mu jàll Sénégal lu yomb la ci wàllu disposition législative moom pour lu yomb la xam nga li tax wax naa ko léegi dañoo ubbi buntu ci constitution bi article 98 bi wane ni luñ déyanteeti ci bitim réew moo tiim loi yi mu fekkoon ci biir réew les traités et conventions internationaux régulièrement signés et ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois dès leur publication. nun sunum réew li nu xamoon mooy sunu aaday bopp sunuy mbattit ak sunu diine watugal muy wa Europe ñoom seeni diine lañ xam ak seeni mbattit waaye ña ko jiite ñoom saytaane lañu xam ak doxalinu àdduna wu yees muy nouvel ordre mondiale ak mondialisme ñooñu nag ñoo jiite xare yi maanaam li ñu tuddee armée yi ëpp kàttan ci àdduna bi waaye itam ñoo jiite yaxantukaay yi gën a kawe maanaam entreprise yi gën a kawe te ëpp alal ci àdduna bi waaye itam ñooy jiite yu baree baree bari ci wara bi koom li yi yi gën a bon yi gën a aram ak yi ëpp alal ci àdduna bi ñooñu nag danoo bëgg ni ñoom li ñuy dunde ni ñuy doxee ak ni ñuy jëfe noonu la ñëpp war a jëfe ndax li tax mooy dañu ni ñoom danoo bëgg liggéeyal seytaane te loolu la ñu signé ak seytaane mm. mooy nekk jaami seytaane ndax ñoom gëmuñu yàlla waaye nee nañu seytaane la ñu gëm te seytaane moom lu mu bëgg dañu ko ko war a defal waaye ñu ni ngir ñu mën ko ko defal nag faw ñu fexe ba wàññi àdduna bi ba ñu nekk ay millions yu néew millions yu néew yooyu nag moo leen di may liggéey bi ñu bëgg a liggéeyal seytaane ñu mën koo def ngir ñu mën a wàññi nit ñi nag kon ñoo ngi jaar ci xare yi muy li ñu tuddee guerre yi guerre yu gën a rëy bokk na ci lu mel ni première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ak lu mel ni troisième guerre mondiale bii nga xam ni yàlla bu ko yàlla dogal waaye ay màndargaam dañuy fànn leer na ñi ci sunu kanam te mooy li ñuy gis diggante Russie ak Ukraine nga xam ni Russie moom dafa taxaw ngir ni jaami seytaan yi nga xam ni noon àdduna bi rekk la ñu bëgg lu ñuy dund ak lu ñu gëm ñu forcé ko nit ñi ni ñëpp moom lañu ñu war a gëm jaamu seytaane la ñëpp war a doon moom mu lànk ni doxin woowu di ci dox te kenn du ko ko forcé maanaam kenn du ko ci gàtt waa itam ñoom ñu am boobu gis-gis ni ñoom suñu di jullit ak suñu ko doonee yëpp li nga xam ni mooy doxiinu seytaane maanaam nekk jaami seytaane kenn du leen ko gax seen doxiinu bopp la ñuy dox kon ñoom du ñu bokk ci nouvel ordre mondial te itam du ñu dund li ñu tuddee mondialisation muy lépp lu bon lu kenn di dund maanaam lu waa Amérique di dund waa Amérique dañoo gën ni bépp bon bon bu nuy dund ñëpp ko war a dund su ñu nekkee ñoom ay yëfër nekk jaami seytaane amul kenn kuy dund ci kaw suuf lu dund ne danga war a nekk jaamu seytaan noonu la wax ji di demee bëgg gën a bari léegi nag ñoom yu mel nii dañu ciy bëgg saa su ne di ci posewu maam di ci profité su fekkente ni xare bi safara si du tàkk ba àgg fi ñoom rek amul jafe-jafe ñoom lu nit ñi gën a wuy yi maanaam lu mbooloo mi gën di wàññeeku moo leen gënal niki noonu li ñuy posewoo ci xeeti virus yi maam li ñu tudde ndoxum yi ngir man cee wàññi mbooloo mi waaye yemuñu ci yooyu noonu la ñuy njëkkantee posewoo ci fexe ba góor ñi ak jigéen ñi sëy yi di am jafe-jafe saa su ne ñuy tas di xuloo di gën bañante waaye noonu lañuy ñuy posé woo itam ci fexe ba jigéen ñi dootuñu bëggatee sëy yi ku ci nekk da nga naa man sama liggéeyu bopp lay wut léegi fii teg sama bopp su ma bëggee caaxaan dem wuti genn góor caaxaan ba doyal wala ma wut sama ay jumtukaay lu mel ni ki ay machine wala ay objet muy ay këf caaxaan ba yëg sama bopp daal di jeex góor ñi itam ñu def ci ñoom yooyu xalaat yemuñu ci loolu daal di def ci ñenn ñi ni leen jëru sax ngeen di dem na ay da di wut ay jëkkër ak ay soxna waaye mën ngaa wut yow góor nga mën ngaa wut góor muy sa soxna kii jigéen la mën naa wut jigéen muy soxnaam wala muy jëkkër loolu nag la leen ko tax a bëgg a def du dara du jàmm du bëgg maanute du bëgg liberte waaye li nu bëgg mooy góor góor moom xam na ne doom du fi juddoo jigéen jigéen doom du fa juddoo bëgg nañ ci tas gi lu tas gi di gën di bari góor ñi di gën di ñàkk kóolute ci jigéen ñi ak di gën di doyal ci mbirum sëy jigéen ñi itam lu tas gi di gën di bari ñuy gën di ragal a sëy yi waaye gën di moytu waaye itam ñu gëmloo xale jigéen ñi ni leen da ngeen di jàng kuy jàng du sëy koo ci waxal muy la damay jàng dama bëgg àggale samam jàng njàng moo xam ni jàng jàngoo dara lu may làkku jàmbur soo noppee ñu joxaat la liggéey ci làkku jàmbur léegi nga daan ni àdduna ab oto boo bëgg mu rafet ak kër gu rafet goo bëgg moom ngay war a jaaye sa àllaaxira dema dema dem ba teeral man na am am na kër gu rafet ak oto bu rafet waaye góor ñaa ngi xool keneen ku ko gën a nekk xale léegi lu ci baree bari la koy dese mooy taxawaal maanaam yor këram gu rafet otom bu rafet di héberger ay góor ñoo xam ni ñang ak seeni soxna sax boomi tuut waaye caaxaan yu bari yooyu nga xam ni jigéen gu doy waar gii moo leen ci dugal moo leen dugal ñoom ci yu bon waaye itam yëmunu ci yooyu ñu daan ni nañuy fexe it ba kenn du am ñaari soxna ndax bu dee ñaari soxna mboolaay Afrique yi ñoo koy am te ñoom dañoo gaaw a yokkal lool kon nañuy fexe ba forcer leen ni leen nun benn soxna lay am waaye kon yéen lenn leen leen njëkk may muy day njëkk ni leen ku ci takk siñu takk lu ëpp benn soxna su dee da ngaa signé ni monogami ga maanaam su dee da ngaa signé góor benn jabar benn jabar dong nga sañ a takk su dee da ngaa signé ni lu ëpp benn jabar ngay takk sañ ngaa takk lu ëpp benn jabar waaye yow mi signé ni benn jabar dong nga sañ a takk soppi suñu too soppi dem ba mu yàgg nga naa mën kat benn jabar laa bëggoon a takk waaye léegi damay dem ma soppi loolu di takk ñaar loolu dañ yow fii ngay dee dafa aram ci yow. maanaam tey soo demoon nga bëgg benn jigéen amagoo woon soxna nga ni man de jigéen gii laa bëgg a takk waaye benn jabar laa signé ak moom moom jigéen googu su fekkente ni tàggoo ngeen mbaamu faatu li feek ngay dee suñu takk lu may benn jabar waaye tey soo demoon ak benn jigéen nga di signé man de. ñaari jabar laa signé woon maanaam lu ëpp benn jabar muy bari jabar laa signé tey soo tàggoo googu jigéen wala mu faatu wala tàggoowu leen mën nga wëy di takk lu ëpp benn jabar waaye ci biir loolu itam su la neexee nga dem ni man maa ni woon lu ëpp benn jabar laa bëgg a takk léegi lu ëpp benn jabar saytuma ko takk léegi benn dong laa bëgg takk ñu ni waaw nga signé ko ba noppi ñu waat léegi dama bëgg a jógewaat ci benn jabar delluwaat fa ma nekkoon ñu ni la mbokk yi nañu jël lii ñu xalam ci ba noppi maanaam Matar nee na benn soxna la bëgg a takk ñu ni ko soo ko signé li fekk ngay dee ak kii nga àndal nii ni moom ngay takk même bu dee wala ngeen tàggoo ba fekk ngay dee ba àllaaxira benn jabar doo nga sañ a takk ak donte da takk junniy soxna koo takk fase takkaat fase takkaat fase benn rek nga sañ a takk leneen nag téréwun la ko bu la neexee benn jabar bi nga am mën nga ko boole ak ay far maanaam ay boqal ma ci ruq bi moo xam bundi tiimir sax garaawut njaalool amul jafe-jafe waaye daal li ñu lay tere mooy sañoo dem ci jàkka ja nga ni maa fas benn maa fasaat ñaar soo fasee ñaar yoon dal na sa kaw waaye soo njaalowoon junni yoon yoonu yoon nekku ca nañu jàpp bu baax ñu daan ni matar ñëw ni man di lu ëpp benn jabar laa bëgg a takk ñu ni ko waaw garawut man nañ la ko may waaye nag su la neexee man ngaa jóge ci ñaar wala ñett maanaam man ngaa jóge ci bari jabar ñëw ci benn jabar mu daan ni waaw léegi ëllëg mu ñëw ni waa léegi man de dama bëgg jóge ci bari jabar ñëw ci benn jabar ñu ni ko waaw nungul nañ la ko nga jóge ci bari jabar ñëw ci benn jabar waaye soo xësee ba am benn ba signé ko bu fii ak ngay dee benn boobu dong nga sañ a takk su la neexee nag mën ngaa dem nga njaalo njaalul junni yoon sunu yoon nekku ci amal milliards doom suñu yoon nekku ci nekkal ak téeméeri jigéen suñu yoon nekku ci waaye li ñu soxal moom mooy benn doo nga sañ a takk maanaam daal daganal nañ ci yow njaalo waaye jabar ju la dagan moom benn bii rek nga ci sañ a maanaam daganal nañ ci yow njaalo junni yoon sax bis waaye moom li am ba am mooy li la dagan moom benn doo nga ci sañ am saa boo ko signé am saa boo ko torloo waaye lu ëpp benn soo ko torloo may nan la nga torlu benn waaye soo xësee ba dem ci benn sañatoo ko soppi nanu digluwaat wax ji bu baax a baax toppaat leen ko ngeen teewlu boo ñëwee dañ lay laaj ndax da ngaa tànn monogami wala polygami boo nee polygami laa tànn man nga koo soppiwaat booyee boo nee monogami moom dootoo ko mën a soppiwaat monogami mooy benn soxna rek lay tànn polygami mooy damay tànn ñaari soxna wala soxna yu bari léegi nag loolu lañ wax ni lan moo tax góor gi di am sañ-sañ bi te jigéen ji moom it amul sañ-sañ bi ni man danaa am ñetti jëkkër mbaa ñeenti jëkkër te lii ay problème loi la ñun ñu toog rek yaakaar ni fi mu ne loolu suñu yoon nekku ci ah kañ suñu yoon a ngi ci tuuti ci kanam ñu fekk ci biir jàkka ji hmm. te bu boobaa duñ dese loolu suñuy bët di jooy waaye nag yëmut ca loolu lu ko gën a yées ngi ñuy jot ndax mbootaayu xeet wi ñoom ñoo demaat ba si yàgg si ñu daal di toogaat daan léegi ci mondialisation léegi dañoo bëgg léegi àdduna wërngal këpp kenn duutu fi takk lu ëpp benn soxna muy jullit bi nga xam ni alxuraan nee na ko fankihu maa taaba lakum mina yi masnaa wa sulaasa wa rubaa léegi ay yëfër maanaam jaami seytaane yoo xam ne ñoom nee nañ seytaane lañu fi nekkal ñoom ñu daal di jóg ni yàllaa santaane leeni may na leen ko ñu ni waaw ñoom ñu daal ni seytaane ci boppam moo ni lii arrangé wu ko ndax su fekkee ni nit ki day am lu ëpp benn jabar su bii jabar mënula ami doom bee jabar dana mën a ami doom su fekkee ni soxna si mën naa am benn doom dong la mën a am kee mën a am benn wala ñaar su boobaa dana am ñetti doom su fekkee kii mënula am doom ñaar ñële ku ci nekk mën a am ñaari doom su boobaa ñeenti doom lay am ñu ni loolu bu nu ko defee kon nit ñi dañuy am ñoom li ñu bëgg mooy àdduna bi na maasaloo raaf ba mu des ñennati nit ci France ak ñennati nit ci Amérique dàq nañ ko nag fii yëg ay xarnu léegi nag loolu ñu wax ni ci ndey atte wala boog sax ci atte yu biir réewum Sénégal ñoom wax nañ ni am di nañ fa benn atte bu ñu ne bépp atte boo xam ne ñi ci biti réew muy jaami seytaane yi ñoom dogal nañ ni atte bii nii moom lañ war a forcé waa àdduna ni leen force moom ngeen di atte woo ñoom amul luñ ci toog di xaar di xool daañ ko def ak duñu ko def may laaj ndax xëy na julliti réew mi ñoom ñoo koy nangu ku ko ci nangu ku ci nekk rek na nga mën a nangu njuree fi ci topp xam nañu ni li feek ci kanam at yu néew ci kanam sunu bàyyee nii sunu assemblée nationale bi maanaam sunu ngomlaan gi ak sunu réew mii ñi koy jiite ñooy gën a yées tubaab ya fii ñàkk gi nee na fi xas fii ku fi amul baay kenn du la toppatoo fii la ñu gën nar a gis nag gàngooru waxambaane gàngooru ndaw ñoo xam ne kenn du xam ku leen jur te kenn du leen taxawu mbéti réew mu bari bandi mbéti réew mu bari sulaar mbéti réew mu bari tooxi lii ndax nun noo koy nangu bu dee ci tubaab ya ñoom doomu njaalo defuñu ko muy dara ndax dañoo gëm ni kum ci man di nekk état moo la yore sa dund ba kera ngay manal sa bopp soo xasee mënal sa bopp taxawu na la ba nga mën a liggéey ba am liggéey su noppee jeex na defal lu la neex loo mën a am baax na ku la neex tëddalal fu la neex tëddal lu la neex defal naanal sàngara njaalool yoonam nekku ci ñoom itam seen yoon nekku ci léegi nag nun fii defe naa mboolem ku fi xaw a baax soo sañoon sa doom du nekk ab sulaar waxuma ku fi baax de ku fi xaw a baax soo sañoon sa doom du di caaxaane jigéen ñi di teg ku fi xaw a baax soo sañoon sa doom benn góor du ko caaxaane ku fi xaw a baax soo sañoon sa doom bu jigéen bu matee sëyi nga may ko boroom kër mu sëyi moo xam aawa lay nekk ñaareel wala ñetteel ku fi xaw a baax boo sañoon sa doom nekk ku mën a lëf ci diine nekk ku yiw ku yiwin koo xam ni kenn du la xool li ko di ko ree mbaa di la ree ku fi xaw a baax boo sañoon kenn du xool sa doom ñu naa dañ ko trompé maanaam dañu ko ëmbal amul borom kër léegi nag tubaab moom deful loolu muy dara xëy na nun ñooy nëw nangul leen loolu suñu ko nangoo ah lu ci xew rek ñu nangu ko gar bu ñu nangoo am doom yoo xam ni kenn du xam kuy seen baay suñu nangoo am fii ay jigéen ñoo xam ne daañu bëgg a sëyi yàlla def leen ñuy ñu maanu yore seen diine duñu bëgg a seen bopp góor ñi lëng man leen a yor man leen a denc ñu ni kët waa Amérique nee nan Sénégal kenn sañatu fee takk ñaari soxna ba tax góor googu suñu la takk kooku wala nit gis jigéen sañ ko takk ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad ñu ni ko doo ko takk te mu am lu mu ko mën a yore mu nekk ndimbal ca moom mu man koo sàmmal diineem sàmmale ci diineem ñu ne ko déedéet ba tax muy dem di génn ak moom ak taxawaaloo moom ak a njaalo ñu ni ko garaawut may nan la nga njaalo waaye sañoo dem ca jàkka jën ñu ni daganal nañ seen diggante lii ku koy daganal wala ku koy nangu daanaka mën ngaa génne sa bopp ci diine ji nde boo ci génnewut sa bopp itam li feek tuuti maanaam ay at yu néew ci kanam yàlla dana la ci génne lii nun waa Sénégal bu nu ko nangoo nanu xam ne at yu niiw yàlla dañ nu génne ci diine kon loolu du lu ñuy sikk sàkk kon yàlla nañu yàlla sàmm te musal ci yëfër waaye nag fawuñu xeex ngir am piixte liberté xam ni tubaab yi moomu nunu yàllaanu moom